Ele é merda, isso é legal. Ele é presidente, isso é legal. Ça va bien l'OS Alhamdulillah. est-ce que mi ngi mi ngi Abbas Allah sama sama. Ne gelir? Alhamdulillah. Tamam ya. Wa. Tamam ya Osman. Sen de alın. Tamam olur oğlum. Tamam. Vale. Wa ne gelir? Tamam alhamdulillah. Wa daha zunnar bunlar. Bu maksimum inşallah. Dakika sağ olun. u s m a n woon na ma l e g Ousmane sama p o é i n t Hello? Good morning. Good morning.

Right?

Thank you. فترة تتبادل الوصال وتسمو يوم بك الياء بعد الياء وبدا للوجود منك كريم من كريم نباه يكرما

سرور يوم لا لا لا لا Eli dundoon junni yëpp ca woote mbaar di woo jam ña jam ñi gën di benn jublu woote mbaar ba tax yàlla mer wàcceem ndoxam ngir leral daw laaw labal laa di nangoo nekkul fa yoon nen mbaar waaye jam ñi sunu maam Ibrahima bi yàlla takkoon xarit te teewul malaakal maaw ci génnee ko néegam mbaa ndam yàllaay Muusa kay borom may gaaf kada dégg yàlla muy waxam moom ca baatam ba waaye anor walaay seydunaaw ibnu Mariama ka wax ca ba muy am leen maa di ak nen baay ki daan fekk ba mee bu borom ne ba yax ya seey mu naan jaan jo doon bee seen ak simi buur baay borom daal di jóg te naan ka yaaru walaay man dafa wan naa ne asaafe mooy wal ca buf nam baay nangu ñaan faju daa jóge feebar ndonom ca limaamu laay la te loolu na fu xoolee ti bàyyi lay ciw melom waag doxin waag waxtu xumba jëni wa dem na aduna yaa jaboor kan ne kon kay nga ànd ak lay ku mel ni limaam ak mooy Cheikh Saadi boog Alaaji Malik ka jàpp ca Cheikhu Omar Kamal na elaasu Omar bi daan xeex ngir del islaam ka saa Allah Abdoulaye Niass ziyaar na sëriñ Cene Baat sëriñ Buukunte ñii ñëpp ñu baax la nu woon te tey ku ci nekk la la la Sabari Babakar leetar yooya bàyyi laay jàngaloo woon sëriñ bay caw la ko sol ba bàyyi laay naan ka ku la laaj sa meetar ji xam-xam neel imaamu sangub jamaana ku lay laaj meetaru bàyyi laay waxal neel xanaa buur yàlla rabbul aalamiina yaay fadloo laay wallahu arhamaha aydan wa akramaha فضلا مخلدا في جنتنا لا إله لا ملاكي سخجون نروغنينا ندم تيني نقوم دم فنوي